li fi jot a xew Sénégalais yëpp di ko ñaawlu euh, Sale Bigué apparemment il a été un peu ah qu'il a fait euh, la moo waral loolu à ton personnel parce que Ndiolé wax dëgg yàlla ak ni la sénégalais xamee ree jàmm kese lañ la xamee. góor ñëw jël loxoom teg ko ci say lax yooyu. yooyu mérité wul loolu <laughs> ah. lax kay man li ma ci xam ay. fóot la mais erreur la. erreur la ah. parce que. waaw ah, lan booleek moom réellement. non non à ton avis c'est quoi le problème. amuñu nag benn problème. waaw parce que Serigne Saliou Mbacké. parce que man aar bi dama cee nekk mais. Mhm. ñi nga xam ne ñoo ma mag. kenn du ci taxaw ne Ndiolé dépassé na ma wala wax na ma lu ñaaw. Mhm. barke sëriñ Saliou. te lii may wax fii ci 2STV. dama koy waat Sénégal di ko dégg barki Serigne Fallou Mbacké barki Serigne Abdou Lahat mhm. du benn problème bu nu jotee. erreur la. waaw ban waa yow dina la fekk nga toog ñëw dul. non xam naa rek seytaane moo ñëw. ndax xëy na moom mi ko def. waa xëy na du jikkoom. mais seytaane est-ce que woon na la jégalu moom. waaw wax dëgg yàlla woo na ma nag. woo na la waaw rëccu na li mu def. waaw woo na ma. est-ce que waykat yi aussi woo nañ la. waaw non amul ku ma woowul ci artistes yi. d'accord amul ku ma woowul ci artistes yi. kii woo na la. ah Pape Diouf. démb ñi nga jóg maay dafa amul jot waaye ku baax la. Pape woo na la. Pape woo ma waaye dina ma woo. incha allah sama càmmiñ ndax xam naa ne ku baax la. déedéet ndax yaay ndax ndax Pape Diouf sa mag la. waaye bu la dara dalee. Uh-huh. moom moo war a njëkk a jël téléphone am woo la. non Pape dina ma woo. xam naa dafa amul temps. ba pare affaire bi xam naa fekk ko fi. ok ko fi. waaye ki ko def it. Mm-hmm. xëy na erreur moo am rek. ok parce que euh, moom euh, xëy na jël woon intention. def ko pour fekk jole toog mu mhm. demee noonu mais seytaane mooy dugg fu mu xajul d'accord xëy na heureusement loolu bi muy am mhm. papa maam lees cun mi ngi toog d'accord mbaaco njaay sama rakk la mhm. sama nawle la mi ngi toog ok te xam naa ne foofu benn baat bu dérangé jugu fa pour jëm ci ci moom ok parce que ku ko jox cër laa dëgg la ndax nijaay la ci man ok nag moo am te jéggal naa ko te yàlla tax d'accord barki sëriñ Sall xam nga njole man bëgg naa la gis fii ak ay say musiciens sabar yi ak bool yi. incha allah defee ñu toj fii. incha allah ci la ñu gën a am temps waxtaan. ci kàttanu yàlla. waaw dinaa la indil fii. waaw cinquante tama. non. fan nga ne. mais loolu dina ma neex de. jamaano duy fa mais yow. yaa ngi fàttaliku. Ah. nooy waxee Anta naka lay waxee tubaab. Anta. Anta waaw. jabar ji. déedéet soxnaam. Eh, ay waay bul wax loolu. doo ah, waaw waxal. ah waaw rax tax bëggoo ma tudd Anta. waaw waxal. non lii dama koy lijjanti. waaw waxal. <laughs> amul jabar non dafa mën a toppandoo sama soxna. <laughs> Anta Gakho. waaw moo tax dañ dem Italie. léegi mu ne ma Jolie ça va ma ne ko ça va mu ne ma Gakho nee na nga ma ne ko kon nee Gakho maa ngi ñëw. <laughs> Ndiolé Tall notre invité sur la 2STV. non